bi dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu nu ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi sëriñ bi noo ngi deeti ñaan faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu nu ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan te Mustafa ma nekk marwat ak safa ak aqi am dir Mustafa mi yàlla jébbal xarnu bi ak ak i boole fay ga kan bi ak di seen baay ya am ak ak i bamba am ndax yàlla naa seen xarnu bi mboolem murit yëpp a tey rëccu bakkaar yi ñu jub balu nu bay du ko góor sëriñ bi geesul xarnu bi Mbàkke da ngay borom yi mboot te sa njaboot tawat giloot ñu def ma ab entel peret may la pudoo bu xarnu bi aw ma makaamam di la woo waaye murit yi ñoo woo ni tawatal te bul nu woo sowlan me yey wu xarnu bi tey gii ma wax ba ni tareet ngir yaa ma def entel pereet yaa fa bi xam-xam ni yëreet ci sama xol ci xarnu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tey ku ka ñaan murit yëpp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi jooyi peram fa lanu jooy boonu fabu leenu ni wooy ku nuy yafal bam defi kuuy nu dellu naatal xarnu bi gisunu yaay te nu ngi ku ñàkk yaay day nampu maam buural boot nu nga la daam rabbu ni mboolem xarnu bi fawal fa ba mi yëpp boot ñoomin ñu boot seenu njaboot ku man sa boot nga jox ku boot ndax yàlla naatal xarnu bi sabal muridu du raal mottali jàkka ji ñu laal foo tollu dolli seen alal ndax yàlla naatal xarnu di ndax yàlla am dil Mustafa tabax jumaa yi Mustafa ba mu toll ni marwa tax safa ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem murit yëpp a ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal di gooy ba seeni at yaa ngi booy sarax nu naatal xarnu bi jamono jaafi xiif a xiif luñ togg bër gi ni ko fuuf Seex Bamba neel gën di mbindeef mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na góor su ndaw di jooy xiif na yenn nu tool booy sarax nu naatal xarnu bi tax na ñi daa joxe ngi laaj ñii jàpp seeni xaaj kenn dootu dem fenn ba waaj sëriñ bi geesul xarnu bi effort bi tax na xol yi tiit makkaar bi tax na cër tuut ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi geesul xarnu bi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawet yi sax dootuñu tooy léeg-léeg mu war booy sëriñ bi geesul xarnu bi xam nañ ni yaanu daan daanu bayal daanu ñoral daanu rojal daanu dëggal feesal nga sax ci xarnu bi su yërmande nu daan defal lu xel dajul daanu dëfal daanu tibal daanu leel regal nga mboolem kànnu bi sa yërmande nu daanu saral jigéen ñi yaanu daan amal tey ñëpp yem kenn amatul sëriñ bi geesul xarnu bi ñii seeni sag saggiku gaay daggiku na ñii seeni ngëm na ngir ñàkk ci xarnu bi at moo ni ndax mooy daaw mu gën a far dellu gannaaw bara bi aayi sax dina aw tey Mbàkke geesul xarnu bi way nu ne way noo ko torox yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob ya rax ba mbay na njaamal xarnu bi garab gu mag bu ne giriw garab yu ndaw ya day giril meññet ma say biri alal li rekk dal waa xarnu bi allahu akbaru samaan jamono moo mën a safaan خي وليد افدا ولا غام في نبي مولم كان نبي لي كي لبسك كذا قران لا لا دي ومي ولا غام مي خلي كوبيا دي نعم وسيكورن كان نبي استغفر الله الذي ثم نلنا دي بكم تمويل لي خلن برام دور جرب لو تكن نبي خي وليد افدا والوري ما لا كنون دي كالجلي moo tax ma jóg di pelpeli sëriñ bi geesul xarnu bi xéwali daf daa wala ngaat wax set nga wuute nga siyaat xamoo ku tu ndax siyaan sam ndoxanaatal xarnu bi wàcc nga yow loo ma tawax def nga ko joxu ma te jox daawoonu nax daawoonu ñaax sedd nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaw gi weddatul may di nga yar ke wuddatul moo tax ma njëmbat li woon ci xarnu bi njëmbat li mooy gaa yi le woon daawi ci xiwal yi fi woon tey ñu ngi def yeñ bàyyi woon ngir ñàkk gi ci xarnu bi am ñàkk moom ci waaju baax day tas këram xolam ba jaax daa ceebu tey ngay añalaax jaaxal na boo dem xarnu bi léeg-léeg nga gis fi am murit muy taxawaalu di marit walla mu xàcc def tariit daw njombe gaa yi xarnu bi am na commerçant ya di jaay ñii di wajaa seeri bakaay te xam ni yaa doon seeni baay moo te nga naatal xarno di ñelee di xacc defi seef ñii defi dak ngir bañ a loof ñii daw baraw bari lu fi moo te nga naatal xarno di yow lanu yaakaar abada ngir yaa nu taggaleeg bi daa tun nanu mboolem lanu daan bakkaar ci jekki xarno di yaram nu tay yaru nanu dootuñu ba xàmmee ananu dootul nelaw yow la mu yaram nu naa tarxal nu di boo nu joxoon nu yoroon dootuñu nu defoon xanaa yëgoon ni yaru nan mu kuwe di laa jël nu nan torox lu nan jooy nanu ren saraxtu nan yëpp lu nan fàttiku nu naa tarxal nu di lu saxu nan sun kër baay ci def la gën ji baay Tuubaa di kër Bamba di waay sëriñ bi geetul xam nu di nun taxu nan sun këri baay gàddaay ci def la gën ji baay Tuubaa di kër Bamba di waay sëriñ bi geesul xam nu di murit yi saalit nañu ren xam na ni yaa leen amee woon yaa leen joxoon nañu yoroon yóbbu nga boo ci xam nu di tiijaan yi rëccu nañu tey خمني بيد صار بي يا بنا ما يلسل قلعي متغنا تلقى المري بوال مولم فلن نارك ولف جنجزة القوام يفترن بجاز القرن به بوال بوال جلو جلو مولم فلن نارك ولف جنجزة القوام يفترن بجاز القرن به وخلد على أمي جاك ده أمي أمدارك يجوب bii at mu am déwén mu jeer sëriñ bi geesul xarnu bi ku mata am yaari wata soxla nga ren ñaari mata te mam am jëgu mata sëriñ bi geesul xarnu bi bi ko xam ni daana ami taax tey mi ngi liggéey jumle bu bu gën a feex bam ni jàppaax sëriñ bi geesul xarnu bi kër yaag wet ba ni woyang la leen yoroon defi korong ña dooni wur defi koyong sëriñ bi geesul xarnu bi tubaab yi sax perti nañu ña leen gëmoon perti nañu yewooti it sayit nañu nañu yees tukki wan far lan fu njiblu dee si leen faran àddina yàkkanu welam sëriñ bi geesul xarnu bi na yaa ngi yalwaan ak xaar seex buñ xamoon dellu fa jaar kenn talatul loo joxi naar bi geesul xarnu bi waaye nag yu xuunan ba dee wallu nu booye xeenu dee melal ni kuy ramm ku dee yaa nuy teel waa xarnu bi yow yaay doonoy ma Amadu te yor nga serab Amadu te yor nga boote ah man ngaa defar waa xarnu bi man sa karam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ni waaw la wax fa di waat ñu ni waaw wax leen ñu naatal xarnu bi sa bira paate naa dërëm nde xarnu bépp am ngërël te am dërëm te bokk gël ga way njëriñ ci xarnu bi mu lebu gaa yi la xamul mële bu gaayi la waaju xamul dees koy xamal subaana yaa kamat kamal yaa ne xawan wa xarno bi nan fal waneeku takk daam ngir moonu may lu jombi maam booleeg murid yi daw ak cen tawar wa xarno bi nan faf waneeku takk daam ngir moonu may lu jombi maam booleeg murid yi daw ak cen tawar wa xarno bi Sénégal kenn du la jàlle genn gaal say du sa tooyal xarno Bamba ma ne su misaal yaay géej gi war waa Sénégal kenn du la jàlle genn gaal say du sa tooyal xarno bi Bamba yaa di mbambulaan ku soobu dootu jandi naan ku mandi day di mbaane teen fay kaata mandal xarnu bi ku soobu génnaaley dërëm bekkoor bi dootu dem këram ku ni corom kaasum dërëm doomat li des ci xarnu bi jeeju ikam gam daadatam ba ni ko secc moom ñoñam mëseesu ca nandal ko xam tokken nga doy na xarnu bi lum la amul niroo ci xarno bi serab àndaari xam-xamam ayam gi sóoral la ñoñam wu jëm amul ci xarno bi serab àndaari xam-xamam mësee su caana tër wu ayam gi sóoral la ñoñam wu jëm amul ci xarno bi fekkoon na dabi ni xareet mu soppi watay sareet duy leen gëneel bañ ni sareet wàccoona moog waa xarno bi du jum du jaax te am xelam du gaddu naax du fatti ci xarno bi taalif na moolu fee taax te xalima am du jum du jaax te am xelam du gaddu naax du fatti ci xarno bi day duusu donga yey dëtal du sey jalaañoo cib dënam mooy géej guril waan di jëram te lever ci xarno bi mam di géej guli ko géej mudu jaler ya bani di delu si to yal karno bi lu baax du baax ba weesu baax be ngi yam fi ba xale bi la dal di baax bah, la wetti dootu baax waajoo gërëm muy gën di baax waayoo la war na xarnu bi waayam du nit garati laax dootuy li mooy sagar di daax loxoom du daara ti ku ya di laajal xarno bi waayam di nit gaaraati laax dootuy li mooy sagar di daax loxoom du daara ti ku ya di laajal xarno bi ku ya di lii demal lagal isaa di mbër moo yaaram na wute nag sagal bamba ko ñaak bi ku weddi lii demal lagal isa di bër moo manu gan yaaram la wute nag sa bamba ko ci xan no di nga neeli naa bi ka na tuut xel root mbaa xalimaa ki daayu xoot lotal na mboolem xan no a tuut root mbaa xalimaa ki daayu kañ la teewe xarnu bi xar la lu xel dajul defu ko raas ko raas fukk la raw na góoru faas ak teewe xarnu bi yaa jara way bañ a selaw guddeeg ba cag bañ a nelaw baraw ña daa wéyal caraw ngir li mu ci xarnu bi